jërëjëf yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax leen wax ne tey nag ñoo ngi fii ñaay cokkeer seet si ki nga xamante ni mooy Wassintor moom mi doon bëgg ak ki nga xamante ni mooy Bébé Elton dem nag ñoom ñaar avant maa ñëw sax làmb ji damay ñëw ñoom ñaar seen diggante ndax metti woon na yàggoon na seen signature rek euh, leneen la ndax signature ba defe naa ne comme comme comme làmb comme jour boobu bi nga dugg see euh, daw. Bébé Elton mënul digérer loolu ba tax na mu daal sa kaw ngeen jëflante fa jëflante bu metti boo xamante ni keroog defe naa ne dëj booy sottee ko na fa bu dul woon ak man ak ciwoon ak yi kenn xamul <laughs> bi defe naa ne du yegg ndax scientifique ba fa la doon yem keroog ndax gis naa fa kuñ fa dóomu daanu gis naa fa kuñ fa dóomu teppeeku ci scientifique donc ma bàyyi léegi nuyoo ñu doog ko wéyal waxtaan wi waas nuyu naa la. waaw ginnaaw bu ma sant yàlla julli jondi bi di sant sama ñetti waajur di sant sama yaay di sant sama papa di sant samay maam di sant rawatina koñ bu ma dëkk parce que combat bi booy dañ ko jël au sérieux booy caaxaanuñu ci benn yoon gars yi gis naa nuñu ci sonnee bu ma limee nag damay jum bàyyi ma kenn mag ndaw góor jigéen ñëpp gis naa nuñ ci taxawee di sant nag sama waa dëkk waa Caawun Kunta man xaadar pire laa waa kër Cheikh Mohamed Kunta laa ñaanal nañ ma bu baax a baax a baax gis naa ñaan yi di sant nag ñu may ñaanal ku ci mel ni Alaaji Cissé ku ci mel ni Pa Lor sa géey Fatick ngóor Fatick maa ngi lay sant ñoom Xalil gaa yëpp maa leen sant di sant ñu képp ku may ñaanal maa lay sant daal bàyyi ma kenn di sant waat àdduna di sant waa Sénégal di sant sama waa dëkk waa Thiawane Kunta di santaat waa Thiawane Kunta bu baax baax a baax sama dëkk ñoom maam maa leen di sant bu baax a baax a baax gis naa ñaan yëpp di sant waa Sénégal yëpp ak sama koñ rawatina Dakar Plateau bi ma dëkk parce que man nekkul ñàccu keer kese laay représenté Dakar Plateau laay représenté waaw ñàccu keer Rëbës Medina Sandial jamono mooy loolu espace ñëpp laay représenté quoi waaw rawatina nag sama koñ fi ma juddoo muy ñàccu keer fii laa yaroo fii laa màggee sama lépp fii laa ko defee waaw mënuñu am lu sut ñàccu keer quoi gis naa taxaw bi booy yi son nañ ci trop amuñu seen fay di bëggee ñëpp waaw Awa Abdou Baba nag maa ngi koy bëggee sama jigéen la daf maa jàppale ci combat ba ñëpp xam ne jàppale nañu. Awa Abdou Baba di nga ñëw di nga ñëw ci gërëm beeg. Mhm. Euh, remercier bi lépp di nga ci ñëw. Mhm. mais ñu ci bëri dañoo foog ne euh, Wassintor comédien la. te mhm. démb bi nga simee ko. ñu ci bëri gis nañ ne da ngaa liggéey. combat bi da nga fonk bi nga bi nga bi nga dawee njàpp. mais dañ na booy bi fan la nekkoon. naka nga waajee combat bi ak ñaata combat nga am. waaw man nag man maa ngi bëre quatre combats bi mooy sama quatrième combat quatre victoire. quatre combats quatre victoire waaw laa def. Bawol onze combats la fa bëre am fa six KO. déedéet Ndakaaru wax naa ko ñu ñëw Ndakaaru ma bëre quatre combats quatre victoire maanaam man man damaa xam Bébé Elton moom xamuma combat bi nag luñ maanaam liggéey nañ ci luñ ci war a liggéey parce que quatre laa daan dem géej. ba 7 heures ci suba ma ñibbi. 4 heures du matin ba 7 dama koy nekk géej kenn xamu ko lépp ma muñ dama daan dem entraînement sax du ma am lu ma reeree wala lu ma ndékkee ma ñëw muñ ko jàpp ci yàlla. nga def nan barke Rasulaay bu ma ñëwee des fois booy ñooy kolo kolo 100 francs 100 francs jox ma ma dem ndékki wala ma dem reer moo tax aw li rek laa leen a fayee mooy ndam lii kase wóor na foofu ñu gis sa toog nga ñëwee ci signature ba xaw nga tardé mais bi nga ñëwee nga yëngal nga yëngal signature ba ba moom mënul désolé loolu lan la woon waaw maanaam man man maanaam wax naa ko à domicile lay ñëw moom à domicile lay ñëw day métti ci moom mënul yomb parce que man maanaam xale laa man damaa mën làmb bëgg a làmb xam nu làmb di doxee ma dund ci làmb daj ci coono yu ne fu ne doon nañ ma fi ci làmb fanaan naa làmb bu bër sët di nelaw kon tey jii su ma demee ba doon ba doon mbër kon lamb du ma mën a jaaxal barki Seydina Mohamed lamb bu ñëw nu mu ñëwee maa gën a mën a xeex ak moom mais du ma xeex ak moom. lamb ji waaw ci combat bi bu ñëwagum ci combat bi. non signature bi noonu la mënoon demee parce que mbooloo moo ma topp gi nga lu ma andi signature ba booy ñëw yëngal tarfin ma ma yóbbu fa mbooloo ba bari te lamb ji moo raw kon maanaam comme man lamb daf ma yaakaar. Mhm. waaw noonu la demee quoi koñ bii ma dëkk mosul am mbër man kese fi mbër. amul kon man damay. mais est-ce que est-ce que sa est-ce que sa nekkin fii kon dina dina dina yomb. waaw parce que instant yi waaw yàlla mu may suutaa parce que am naa ñi may ñi ma ñëpp ay jour lañ te ku ci ne boo xëyee yaa ngi ciy jàpp booy dañ maa bëgg a barke Rasulullah dañ maa bëgg dañuy dañuy ndax man jour combat yi booy mënuñoo noppaleeku chaque minute booy ñëw sama gàlle. démb bi nga dugg sa stade. waaw gis nit ñi. gis mhm. stade bi nu mu mel lan nga yëg. waaw parce que Iba maa a bëree sama combat bi arène nationale laa ko a bëree waaw gis mbooloo bi dama xam ne tey tey tey tey bisu dee la quoi bisu parce que man képp ku ma xam bu ma duggee ci làmba dem dëj moo may gën a dem ngénte barki Seydina Mohamed joxaguñ ma samay morom man nu ma toll sama nu ma toll man doo dégg nu ma toll sama doole ëpp na noonu man xale laa damay liggéey te bu ma si simee koo démb woon lépp ñëpp teg nañ seen bët ñëpp xam nañ ne liggéey naa su ma bëri woon daanu tamit dama koy sant yàlla xam ne yàlla moo ko dogal mais maanaam dañuy waxtaan quoi waaw parce que man sportif laa Bébé Elton dinaa dem ba Kër Massar seeti kër may Géejawaay seeti ko ñu waxtaan parce que làmb mooy doxee noonu di ko encouragé moom tamit liggéey na lu mu war a liggéey yëpp waaw mooy loolu. démb moment bi nga simee ko def say mhm. galaaj ba noppi. Mhm. li nga tuur doomu taal la wala lu mu doon. waaw doomu taal la doomu taal bi nag fu mu jógee dafa sori. mu ngi jógee foo ko pour rafetal nii rek. moom dañ ma ko jox te fu mu jógee dafa sori Ousseyn man xale laa ay nit ñoo toog sama ginnaaw kon caaxaan waruma lépp lu ma andi ci làmb jàppal ne lu am solo la loolu mu ngi jógee ba war xoox benn dëkk bu nekk ginnaaw Jolof bu ñuy wax war xoox ginnaaw jolof la ne xam nga loolu sori na Ouzin mhm. waaw barki Seydina Mohamed waaw war ko ñoom ma ko jox maa leen di bëggee ñoom bu baax a baax a baax waaw nga sottee ko taal bi mu sottee koo soo bi waaw parce que waaw bu ma bu ma man bu ma sottee koo dóomu taal mu sottee ko soo dafa daw xam na ne dara nekku fa man bu ma simee koo sottee ko ñëpp dañu xam ne tey tey mooy loolu dama koo fay ci ko bépp loolu mënu am ci combat bi dara lépp laa ko dominé barke rosu yi laay mais abdi siflé waaw ngeen jëflante yéen ñaar jëflante bu metti waaw boobu arbitre bi mu sifflé doon nañ ci xaar xeex. mais xeex bi tuuti la ci. non du ma xeexal moom. lu tax maanaam damay sànni ay góob dara ba mu jàpp ne damay xeex man maa ko dàq bëre. ay lay soppi Nokia. barki Sadou Fada combat bi dama cee entraîné. damay entraîné. damaa entraîné ba xam ne damaa entraîné barki Rosu yi laay. damaa entraîné ci combat bi compte bu bëgg de dee expecté ngi nii. combat bi bu mu desee deux semaines chaque jour lay ñëw géej dañ gars lu métti lañ may teg ma sol gant barki Rosu laay combat bi nii rek la mënoon demee mais damay sant yàlla bu baax a baax a baax ci gàllaaj bi waaw parce que ñun moom ay xel lañ mënuñu dara dañuy jéem rek dégg naa nag mbër bu bu bu waaj combat sangu du ko def de non du loolu man waaw boo ma xoolee xam nga tilim tilimoon naa trop nag mais est tey moom trois fois laa sangu ci jour bi sangu naa dix heures <laughs> sangu midi sangu deux heures moo tax gisoon nu ma leeree ñett yoon sangu ci jour bi damaa gëjoon sangu <laughs> ko waraloon quoi mais ñu gis euh, bi ngeen xeexee waaw ngeen daw jàppante mhm. mais ñu ñu ci bëri nag nee nañ sa caxabal bi daa sooy parce que da koo yóotu di ko forcer. te ëppuloo ko doole non loolu man njool su ma ko boon doole du du fu mu taxaw. man lu may def xam naa ko Ousseyn man maay dugg ci man ma lu ma arrangé ma lu def ko man lu leerul du ma ko def loolu sama point fort la loolu kurul moom sax dama ko koy def dama ko koy def daan ko kurul moom sax dama ko koy la waaw am na yeneen ak yeneen yoo xam ne des na quoi mais maanaam lamb ji nii rek la mënoon demee non du sorewul parce que dama ko ëñ ma bëgg mu gën ma jege moo tax moo tax ma dama kaa njëkk a lonku. dama kaa njëkk a lonku bëgg mu jege ma. Mhm. moo tax ma tëb ma tëb taxawaat. ma mu ñëw mu jege si. foofu est-ce que foofu jàppaloo euh, li nga doon def risque la te baaxul moo tax nga tëb taxawaat. non non non parce que moom mënut a bëre xamul nan la ñuy daanee mbër. déet mën na bëre parce que Rasulaay bu nekkul ci làmba. sopp kasi moo ko dugal ci làmba. mais yoonam nekkul ci làmba. barke Rasulaay waru ma am licence mais xam nga làmb moo a tëri quoi lu waroon am licence non ñun xam nañ ñu mu wax ne la handicapé la loolu safuta wax barke rosu ko mhm. daw yéeg ci kaw tribune ba ci kaw coll ba waaw lu ci yoonu làmb foofu foofu amateur boo gisee ma def loolu parce que comme lu nga wax sànq ñëpp dañ ne Wassintor comédien la wala day neexal làmb waas bu ñu daan gis wax ju du benn man dama am kër ci làmb dama dem loolu dama woon ne gars ñun faaw ñu waaw yéeg non non jàppal sama gémmiñ de firawuna bi laa leen may bii farawo bii <laughs> na ñëpp noppi bi na ñu noppi bii il les seen gémmiñ moom laa demoon may quoi waaw moom laa demoon may quoi waaw firawuna bi nga leen may waaw bii na ñëpp noppi parce que ñëpp dañ jàpp ne man comédien laa wala ñëpp dañ jàpp ne man damay ñëw di nee neexal dafa am fu mu yem man léegi lamba xam na ma neexalatuma Ouzin man lamba xam na ma léegi damay ñëw wala jëm ak fu la fayda parce que léegi lamba ji Ouzin du ay caaxaan de wax ji neex na trop mais tamit faaw nga entraîné de. liggéey bu leer laa wax liggéey bu baax ci la bokk de Ousseyn. di waxee sa la Mohamed yii Ousseyn loolu. loolu Ousseyn Ousseyn loolu ku la ko waxul da ku la ji léegi day gën a metti parce que ponkal yi ma gis ah faaw ñu doole di nag démb démb. waaw encaissé bari na de. waaw ma ah, man <laughs> man mbëru amateur laa mbëru amateur laa lu ma encaissé bariwul gars yi téeméer mi lan lañ daan joxe. la ñuy joxe quoi mooy loolu yaa ma gën a xam. mais nga jugee nga jugee ci ndam ndam moom defe naa neex na ndax sànq ba léegi foo mbu waas waas waas léegi foo jëm. waaw fu ma jëm mooy maanaam nan ma jox samay morom Ousseyn nan ma jox ci poids lourd yi ma bëree nan ma jox gabar sin wala ki nga ko mu faas oh! nan ma jox ponkali la bëree. loolu laa ko dama am a Ousseyn. lan moo tax nga dajale feebar yëpp dajaloo nga tànn Siteu. Ousseyn man dama lay wax benn wax te yow bàyyi xel chaque jour. dama la ne man onze combats laa bëri bawal am six KO six yooyu six personnes yoo xam ne dama leen dama leen dóor ñu daanu. noonu la demee Ousseyn ba yow xamoo ma ne yow boo yow boo ñëwoon booy seetaan ma foofu ngay xam ne kan mooy Washington ba tey bëreegu ma lii nga gis nii du dara. léegi moo tax nga bëgg euh, euh, Gabassi nga euh, kii. kii Kong non non man man dama doon xale man man sama sama taay may na may na ma bëre ku ne ci làmb ji. Mm. sama taay man taay tabaatin laa yor taay tabaatin laa yor sama taay may na ma bëre ku ne ci ji. mais li ma say adversaire parce que nag. waaw bu fekkee dañoo waxante dëgg booyu saf yi fi nekk. waaw dab dab dab daan su ma mayee chance ma bëre moom dab daan su ma mayee chance ma bëre ak moom dab daan Alliance Baldé man ak moom làmb la Thiatou Fora ma ak moom làmb la. Ah, waaw a nag waaw ñooñu la. nañ nañ ñëw bëri man ñu bëri man Ouzin damaa def samay preuve Papa Boy Djiné grand combat rek laay bëri moom ma dul grand combat du ma bëri moom waaw damaa def samay preuve man ki ma daan géejewaay te ci yaakaaru géejewaay la bokk te poids lourd la cent vingt kilos lay posé cent vingt kilos nañu waxee dëgg quoi ma ma démb Ouzin bu ma ko ñëpp a tiit barki Seydina Mohamed. non da nga liggéey dama liggéey Ouzin dama liggéey ma rawatina Ouzin bu ma duggee ci géej bi daw daf cent barke Rasulullah Ouzin damaa liggéey war a Rasulullah yi gars yi biraa biraa yi ma suko baay yi ma suko yaa bës Ouzin mënuñoo noppaleku sama gale fa xale jigéen ceebu ginaari saf sàpp lañ togg barki Sina Mohamed booy lekk ba suur Ousseyn kon ndam rek moo ma ram moo ma waral bilaay walaay Ousseyn man xale laa Ousseyn barki Ousseyn xale bu ndaw laa Ousseyn dama war a lekk su la lamb démb lan moo ci gën a neex waaw lu ma ci gën a neex mooy ma daanee ba pare ba yëg ci ma ci gën a neex parce que boobu dama dama dama parce que Ousseyn non Ousseyn Ousseyn démb dama dama tur xewal bilaay mais nag ñu ci bëri ne ne sa galaaj sa galaaj mu nga sotte koo xasoon na trop feeñ na trop. <laughs> galaaj feeñ na trop mais waaw man xale laa man gars yi dañuy dem jël rek ñëw jox ma dañuy dem jël rek ñëw jox ma man xale laa dañuy jël rek ñëw jox ma barke Rasulaay mais lu ci gën a garaaw Ouzin lu ci gën a garaaw booy booy booy sama ñi ñi gérer sama musique comité bi musique bi gars yi fu ne lañ dugg gars yi fu ne lañ dugg comité musique bi gars yi fu ne gars yi comité musique bi fu lañ dugg ku mel ni Miss Ba Abakara ah Alioune Ndéla Téli Tobo Assane Diagne gars yi fu ne lañ tugu sama président supporter booy Banjul démb noppaleekul sax yëpp moo ko jënd ji bilaay Ousseyn ma xaalis bi dama dama dama dama dama dama liggéeyoon ba yor ba yor deux cent cinquante mille Ousseyn barki ma def ko sama compte Wave Ousseyn combat bi taxaw ma jël lépp këpp ko ci bilaay waaye dem ci Fatick jóge Fatick dem Gossas jóge Gossas ñëw Diourbel jóge Diourbel ñëw Thiès barki Roussa lu ma yor yëpp jeex dem Ndiassane lépp pour ndam lépp pour ndam moo tax suñu. ñaata nga fexe ci combat bi. barki Saaru Fada bilaay walaay lu mu ñu fexe ëpp na 500000 di dem bilaay walaay man dama bokk ci làmba u leer laa la wax dama bëgg man na ma làmb bàyyi xel. waaw instant nag bëggaat naa bëre trop sax parce que keroog boo démb boo gisee stade bi xam ne mobilisé naa. Mm. booy tàllañ ay piri masin yëngal stade bi ma ñëw def lu rëy. santal santal gërëm santal gërëm. waaw maanaam di santaat rek. di sant euh, ku ci mel ni Issa Racky président ku mel ni Issa Racky président maa ngi koy sant di ko gërëm Issa Racky amuñu fayam jàpp na ci bu baax a baax a baax Yande Diop amuñu fayam jàpp na ci bu baax a baax a baax ji jigéen bu mën góor la waaw aw Abdoul baax aw Abdoul Ba maa koy sant mention spéciale aw Abdoul Ba waa sama yaay boobu bu baax la barke Roussaay jàpp na ci combat bu baax a baax a baax may nañu 117 ak benn bologu billet aw Abdoul Ba xaalis bu bëri may ji combat bi amuñu fayam waaw di sant na Maodo Sow maa ngi koy santa Maodo Sow maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ak Ibra Thiam sama patron Ibra Thiam maa ngi koy jàppana jàpp na ji Abdoulaye Niang Abdoulaye Niang jàppana na ji Abdoulaye Diop jàpp na ji bu baax waaw gars yëpp sama staff bàyyi ma kenn staff bi gis naa taxawu bi ñëpp bu ma limee damay juum ak sama président supporter booy Banjul waaw maa ngi nuyu ñëpp ma fi yaa bi maa leen nuyu di di nuyu waa Werante famille waa Werante famille ah, ah, waaw. waaye ak waa Jamaïque ak waa Jamaïque maa leen nuyu bu baax a baax a baax sama kon bàyyi ma kenn booy ma nga ndaw góor a jigéen sama waa dëkk waa Thiawane Kounda sama dëkk sama dëkku yaay maa leen nuyu di leen di leen sant ñoom ñëpp jàpp nañ ci waa Fass Mbaaw booy Fass Mbaaw yi gis naa seen taxawaay waa Pikine maa leen di sant di leen gërëm xalil xalil maa ngi koy sant xalil Mara sonn na ci bu baax a baax a baax a baax ñoom ngóor gaay yëpp aw ma seen fay gars yëpp ku ma limul rek nga xam ne xel bi moom mooy loolu yaa ma gën a xam ñoom Misbah gars yi Togo ñoom Aba gars yi sama sama koñ daal bàyyi ma kenn képp ku ma lim damay jum garaan ndey booy ñëpp maa leen di bëgg di leen sant tout bàyyi ñu kenn Ouzin lu ci kanam rawati ba nañ yàlla may gudd fan a wér rek incha allah. mais nag ndam dafa neex. bul am ndam rek tax nga bàyyeeku bañ a toog di a liggéey. waa non noonu la demee sax. làmb day bett de barki seen ma tey suba teel laa jógee laa def leen tey suba teel laa jógee géej. mais sa waay nee na njox bébé Elton mu jekkali ko tey tey si fajar laa jógee sa waay nee na njox bébé Elton mu jekkali ko. waaw mais bu ñëwee moom ñu ñu ñu waaw. ah oui. ah, ah Asiru Diir yuma suga waay yuma suga waay biraa biraa yuma suga waay yuma suga waay yaa